melokaan bu jéggi dayoo la ñu nemmeeku ca boori stade Léopold Sédar Senghor moonte bërëb ba wane woon na beneen xarkanam gannaaw ay opération déguerpissement yoo xam ne defoon nañ ko fa waaye tey ji bërëb ba kenn xàmmewu ko góor gi moom jiite garage bu Ziguinchor mu ngi lu doxalinu ñi nga xam ne ñoo nekk ca bërëb ba. léegi nag boo xamee ne tey yaa ngi fi ñoo xam ne xilifoo leen borom sereer yaa ngi fi borom xaal yaa ngi lu nekk mu ngi stade boo gisee garage bi demee nii kenn mënu koo toppatoo. parce que tey garage bi bu la neexoon léegi nga jàllal ba ko bale garage bi bala ngay paree nit ñëw sotti fi dara nga wax mu ne la fii moomoo ko te doo ci am benn dogal. ñu ne mee ko fa itam ay ndoxu fos yoo xam ne dina faral di gàllankoor seenub liggéey. waaw léeg-léeg nag day génn xaw fi def une semaine léeg mu def fi deux semaines wala léeg-léeg mu def fi un mois ay gars yi ñu àpp génn waat mu dem waaw. gis nga fi ñu toog nii baaxul te nit moom fi ngay liggéey moom war bu baax boo xam ne ci accueil client yi ay parasol rek waaw client dañu am problème mu toog ñun dañu am problème mu toog waaw. Kéba Cissé di woo njiit ñi ngir ñu àddu ci mbir mi man cee indi ay saafara. parce que boo nekkee foo xam ne yow yaa ngi ko def garage te du garage loolu rek difficulté la waaw. tey am na ci yoo xam ne nii ah ñu ko mën a dogal mën koo toppatoo. war koo mën a defar ba mu jaar ci yoon loolu du ñun parce que moomuñ ko. ci beneen fànn wi jaaykat yi ñoom itam mucc ñu benn yoon ci melokaanu bërëb ba waaye bu ñu sukkandikoo ci ndaw si liggéey bi ñuy amal ci stade bi moo waral bile situation. man de ma fa commencé yàggut maa ngi ko jot sama wërsëg li ñuy defar waaw stade bi moo tax mu mel nii mais bu stade bi jeexee moom gëm naa ne dañ ko defar ba mu baax déedéet fii nag amuñu benn problème wax dëgg yàlla waaw. amuñu benn problème. bu weesoo ñàkkum cët bi ñu nemmeeku ca bërëb ba ña fa nekk di joy itam ma wàllum kaaraange ci loolu ñu ci woo autorités yi nekk ci gox ba waaye itam ci gouvernement bi ngir ñu utal leen ay saafara ci nu mu gën a gaawee.